yow euh, depuis kañ yow yëmbal nga juddoo. moo hmm. juddoo fa nga màggee. waaw màggee faa defee kañ nga bokk APR. depuis 2015. 2015 yow yàggul yow doo membre fondateur. doo membre fondateur. léegi yow euh, man yaay looy looy liggéey. man suñu soudeur agréé. soudeur nga agréé waay. soudeur nga jàng. waaw foo ko jàng. de la force. Hmm. da am bag jàng soudeur. ba léegi moom ngay liggéey daal. moom laa liggéey waay. da nga am atelier da ngay liggéey si entreprise wala. daa di liggéey entreprise waay. ñu dem fu nekk ci àdduna bi. bii hmm. ma ay changé. si àdduna bi yëpp. waaw dañuy def ay yan yan yan réew. bëri na mais surtout euh, man li ma gën a ñor mooy. waaw mais d' accord si loolu ñor. waaye non réew dafa dafa mes temps bi bëriwul dafa am message bu gën a ñor te li ngay laaj. c' est ah. man. waaw ma Ndiaye. déglu ma expliqué la déglu ma expliqué la. ma Ndiaye. man li ma tax a ñëw mooy wala yow yaay déglu. man li ma tax a xam nga yéen Sénégal li lañ doon wax léegi. man li ma tax a ñëw mooy. waaye defal nànk rek. li tax a ñëw mooy déglu ma si ba pare. a doo dal tuuti. plateau bi xoolal plateau bi man maa ko jiite. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. man li may laaj nii. peut nga lan ngay liggéey. Mhm. man dama lay laaj nga tontu après nga wax la fi tax a ñëw. di nga am temps pour loolu Mandiaye dalal. temps bi bari temps bi doy na. bismillah bon. ah ñoom <laughs> sama plateau bu ko jiite loolu du ma ko nangu. bo léegi yow. Euh, yëmbal bi gi nga dëkk. APR kan moo ko fa jiite. am na responsable bu fa nekk responsable politique boo xamante ni ñuy wax ku wax Cheikh Tidiane Gadio moom moo ko jiite. Cheikh Tidiane gaajo waaw moo ko jiite turandoo moo doon turandoo ministre bi fi newoon. j'espère que man xaw ma. yow xamoo ko moom. xam naa ko moom mais xaw ma moom ngay liggéeyal. non man Macky Sall laa liggéeyal. ma ne est-ce ànd ak moom di liggéey. Macky Sall laa liggéeyal Macky Sall moo ma ñor Sall bu gisee ma ñëw fi mooy. waaw man la laaj lu dalal tuuti rek dëgg ma wax la fa cest noonu déet loolu hmm? ça dafa am lu mu gën a ñor. bon xaaral ñu léegi si yow. bisimilah. Euh, léegi Bapulo yow